kon mën naa ñëw foofu parce que après laa ko bëggoon indi gis nañu le 10 mais bi ñu génn euh, presque lu toll ci trente dossiers yi nga xam ne waa de des comptes fësalaat nañu ko yow noo jàngatee loolu comme ñëw nga léegi ci. waaw parce que loolu moo nekk la mission. kii euh, li bi ñu leen bi dénk en tant que corps de contrôle boo defee sa liggéey pare c' est euh, le droit nga def nga rendre public rapport yi nga jàngat. nga càmbar nga publier ko. def naa I euh, IG IGE wala IGF e ak ñoom ñooy jox seen euh, documents yi seen rapport yi le président de la moom mooy décidé ndax da koy euh, déclassifier da koy publie wala déet mais à part loolu yeneen corps de contrôle yi OFNAC Cour des comptes xam nga institution de la république lañ muy comme boo jëlee kaw Cour des comptes bu defee liggéey ba pare war na ko publier ni ñu xam liggéey bi lan na ci lan la lan la ci def mu def publication rapport yi moo tax bi le président aussi ñëwee dafa leen jox instruction à ce que ñu publier rapport yi euh, lanee lu ci lu ñu sous-entendre mooy bu ñu ko publier rek dina am ñu ñu épinglé dina am ah. aussi nit aussi ne leen tudd ko def loolu ñu épinglé il faut que justice def liggéeyam ci loolu te warul xaar aussi parce que am si ñoo xam ne leen tudd ci euh, jël xaalis bu ñu moomul ñenn ñi jël ay ay patrimoine euh, réew mi mm. te dañ ko a recouvrer delloo ko boo xoolee fi mu toll nii dafa am ay am na ay jafe-jafe. am na perturbation budgétaire. donc c' est une aussi euh, alternative. Mm-hmm. bu ñu mën a réussir à recouvrer l' argent euh, supposé volé par les anciens ministres ñu delloo ko ci euh, caisse du trésor pour Sénégal amaat tuuti souffle. parce que l' économie du pays en a besoin. parce que boo xoolee on a on s'achemine vers la tabaski l'hivernage te bu ci nekk dafa laaj ay investissement dafa laaj xaalis bi ko war a def te on peut pas toujours se réfugier derrière la la dette derrière l'endettement mm-hmm. donc bu ñu mun a contourner loolu fexe ba ñi nga xam ne jël nañ xaalis ñu delloo ko parce que boo dégloo le président euh, Bassirou Diomaye Faye wax na ko bu ñu def discours fin d'année daf na ñi jël sax wala ñu am ay traitement on peut accepter à ce que ñu transiger ñu euh, aussi suuturaal leen. d'accord boo delloo wala nga wax nga dévoilé ne man am naa lii nga def ko ci suutura ñu jël ko. ah bàyyi aussi nga dem. sans que loolu aussi yoon nangu na ko parce que on peut l'appeler la coopération. Ah, judiciaire parce que boo coopéré dans le domaine de la justice nga am une circonstance bu sanction bi waroon métti mën na moins moins sévère. Euh, là-dessus nañ dem ci loolu. Euh, rapport yi nga xam ne jot nañu leen publier nañ ko càmbar yoo xam ne parce que yoon rek moo ci mën def liggéey bu wër. d'accord parce que foog aussi le procureur mu def instruction dossier euh, dossier yooyu. xool ndax ñi ñu ciy tuumal parce que ba léegi ñoom dañu nekk ci présomption d'innocence mënoo ko leen taxal dara. exactement parce que il faut euh, le le le droit de chacun. exact parce bu ñu la dénkee fonction. Hmm. noo def gestion boo xam ne zéro faute la. waaw mais am na si yoo xam ne mun nañ ko bu ko càmbaree yoon mun na ne euh, infraction yi ñu ko toppee yi ñu koy tudd def ko. parce que il va falloir ñu xool éléments euh, qui caractérisent une infraction infraction bu dajawee ñu mun la teg condamnation dina si am si yoo xam ni leen jafe pour ñu mun a indi les les trois éléments yu caractériser une infraction morale légale ak matérielle donc foog aussi euh, justice dafa liggéey parce que justice loolu mooy moo koy jox crédibilité euh, le contraire donc day jeter un discrédit sur le travail qu'il doit qu'elle mm-hmm. donc le ministère actuel de la justice war na dem ci liggéey boobu mm-hmm. aussi ñu def ko de façon indépendante garantir euh, la séparation euh, des des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs parce que aussi foo la ñu xaar aussi euh, gouvernement bi parce que ñoom ñoo ñoo ne rupture donc foog ñu andi loolu ñu def yoon dem liggéeyam ñu ñu tudd bu ñu leen war a teg daal ñu teg leen daan si c'est le contraire ñu bàyyi leen aussi ñu def parce que jusque là dara wóoragul Babacar mhm. noo gisee 30 euh, rapports yi nga xam ne teg nañu ko ci kaw table bi ko ak 40 euh, defe naa yi nga xam ne moo jiitu woon. Hmm, waaw je pense que c' était 40 rapports ah. waaw en euh, tout cas la loolu la ñu waxoon ah c' était 40 rapports ñoo nekk ci bureau procureur. Mhm. yokk ko ci trente yi noo ko gisee. scandale. encore scandale sur scandale dama am bu ma bu ma tiim nii rek benn carré ci leen ma ma bëggoon koy wax. allez-y. Euh, maa ngi tey ci journal bi di yor-yor bi mm-hmm. rapport Cour des comptes 2012 2016 la malgouvernance du maire Ousmane Gueye épinglé. nee na en cinq ans. Mm-hmm. en cinq ans trois cent dix neuf mille cinq cent quarante deux litres de gasoil consommé trois cent dix neuf mille cinq cent quarante deux litres de gasoil consommé. gazole sur cinq ans. ce qui fait deux cent vingt et un millions neuf cent quatre vingt treize mille six cent quatre vingt francs. deux cent euh, c'est combien encore deux cent vingt et un millions neuf cent quatre vingt treize mille six cent quatre vingt francs gasoil kii moom naan na suñu xaalis. na ko fay. <laughs> kii kii moom naan na suñu xaalis. non nañu fay rek. non mais mais noo noo nooy comprendre. ñun la en cinq maire bi moom consommé na plus de deux cent de francs CFA pour ndox moom sotti ci oto mu daw benn oto parce que on dit que ci 2012 mu ngi yoroon benn benn benn benn pick-up euh, consommé vingt deux millions neuf cent quatre vingt seize mille cent quarante huit francs pour vingt cinq mille trois cent vingt neuf litres benn pick-up après l'année suivante benn pick-up après deux pick-up trois ba quatre. je pense que li nga li li li Lamine wax. la justice. Mhm. moo am liggéey bu rëy rëy rëy mhm. parce que li ñu fi publier ci ay rapport lépp. Mhm. bari na lu ñu fi dégg ci ay mbuxum bari na. li nga xam ne nag mooy tax rapport yi am njëriñ. déjà y a une chose. muy le président Bassirou Diomaye Faye li mu def rek mooy lu li président Macky Sall waroon def te deful ko. muy les corps de contrôle def seen liggéey mu ordonné à ce que publier les rapport yàgg nañ ko fi joyetu surtout la société civile mosuñu ko am. d'accord donc le président Bassirou Diomaye Faye li mu joxe mooy joxe ndigal. ñu ordonné rapport ñu publier rapport yooyu muy OFNAC muy Cour des comptes bu dee IGE ça nécessite la déclassification du président de la République peut-être foofu tamit ñu ngi xaar. Euh, amaana mu mu mu mu déclassifier ay rapports yoo xam ne bu fekkee ne jàpp na ne war nañu ko war nañu ko mën a publier mais rapport la yoo xam ne cinq yii président Macky Sall moo fi nekkoon. Mhm. ay yi ko doon def. mën nañu wax ci régime am la. Mhm. le président Bassirou Diomaye Faye amul dara loo xam ne mën nañu wax ne laale na ko ci. Mhm. li mu wax rek mooy publier leen. léegi nag comme moom laale amul dara loo xam ne peut-être mën nañu wax fii ni moom moo ko def loo mbiru politique loo yu nu mel. Mhm. président Macky Sall moo fi nekkoon nommé ay ministres am ay DG am ak yu nu mel. ak maire yoo xam ne peut-être dañ leen fal. des corps de contrôle comme OFNAC comme IGE euh, comme euh, Cour des comptes def seen liggéey ay magistrats lañu. ak seen équipe ni ñu composé woo ñoo xam ne xam nañu wàll gi naka lañ ciy demee def seen liggéey ba def rapport yu nu mel. je pense que ne par respect ak ñooñu rek ak liggéey bu ñu def. Mhm. dafa jot bu ñu jébbalee procureur rapport bi ñu teg ko ci table justice def ci liggéey bi nga xam ne moom la ci war a def. Mhm. képp koo xam ne jox na la suñu alal nga dugal ko fu mu warul dugg. Mhm. justice def ci yow li mu war a def ci yow rëq. amul sax amul amul amul état d'âme quoi amul neex la parce que dañ laa joxoon mënuma comprendre tey. Euh, ma jël benn exemple ku mel ni Pape Malick Ndour jox la suñuy milliards defal ñu lii joxoon ñu résultat ba pare génn di jubilé épinglé wuñ na genre boobu dañoo waroon am kersa bi rapport yi génn ñuy génn di jàkkaarloo war ak askanu Sénégal. génn gi metti na la de. non mais. <laughs> génn gi metti na la trop. non man maa yooyu mu metti ma. <laughs> mais dañ ko doon jiiñ sàcc sàccul kay bàyyi ko mu jubilé rek. yaa wax ne sàccul. non moom nee na sàccul. c'est pas lui dañu wala sàccutuñu xaalis. Eh parce que ci yaa ngi dem di ngay lii rapport Cour des comptes. Euh, ou OFNAC je pense. mu lay wax gestion Prodac Pape Malick Ndour ñu lay wax surplus su 2 milliards yoo xam ne am na ci versement bu nu waroon def. ñu koy wax muy wax enquêteurs yi man ordonné wu ma versement bi li laa ordonné li laa ordonné. d'accord la loolu contradictoire parce que production rapport noonu lay demee. mais léegi nan na justice jël mbir moomu. xoolal ñu deux milliards yooyu ba xam fan la dugg. moom moo ordonné wala ordonné wul. xa 2 milliards yoo xamaguñ fi ñu dugg ñu wax ni Prodac projet wu 100 milliards ñu wax ni 29 milliards ñu ciy tudd ku ne. Mm-hmm. ma euh, Birame Seck ñu wax ni 36 milliards. encore beneen phase ñu dekkee su mu jumul 59 milliards moom la ñu mentionné ci rapport yi ak la mu àndal donc yooyu noonu yëpp ay milliards milliards ak Prodac yaakaar bi ci Sénégal yi amoon. gis ñu ko ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam nga ne bii maire wax dëgg fi yàlla gox ba mu nekk liggéeyu fa. tuuma la nag parce que nañu bàyyi tamit ñu xam ndax euh, c'est ça qui s'est réellement wax nañu ko c'est juste que dañu koo kii rek mais cela ne veut pas dire que c'est pas parce que dañu ko wax rek loolu moo am réellement. moo tax ma ne la justice am na liggéey comme ni ko Lamine waxee. exactement moo justice am na liggéey bu mag a mag a mag a mag parce que ndax mbuxum yi am mhm. lu ñu doon wax ba góor sii nii sa ginnaaw ñu bokk ci moom gañawaat réew mi war ñu yoraat fii <laughs> doon gën a métti ci ñun trop Lamine donc je pense que ne la justice li ma wax léegi moom moo war a taxaw nag féexal xolu sénégalais ci lii mu jël les dossiers yi ñu ci war a traité ñu traité yi nga xam ne peut-être comme Lamine mu ngi koy préciser léegi peut dina am yenn fautes yoo xam ne li muy laaj rek mooy ay recommandation te boo mhm. demee ci rapport yi boo koy lire noonu lay demee. Mm. bu ñu traité benn situation dinañ def recommandation parfois ci ministre lañ koy def. Mm. Euh, peut-être ministre des finance wala ci lu jëm ci génne xaalis yu ñu mel parfois ci directeur bi nga xam ne mooy coordonné yenn yenn secteurs yi moom la ñuy def ay recommandations peut du c'est pas personnel loolu mais buy ko fa ne wala ki ko fa war a wóotu pour ëllëg mu jële les dispositions yoo xam ne dina fex dina tax. Euh, yenn situation yi dootul faa yooyu dootul fa am donc loolu ay recommandation la yoo xam donc am na ay faute de gestion yoo xamante nii mën nañu wax lii dafay aaju ay recommandation pour que ëllëg bu mu amati mais am na loo xamante nii nag moom je pense que ne tous les éléments sont réunis pour ñu caractériser ko mu nekk benn infraction boo xam ne yoon dara war a mën a rëq sa ndigg ñu commencé ko ci ki ci gën a suufe yéeg la chaine bëcc bu laalee moom président Macky Sall sax ñu indiwaat ko fii ci réew mi justice am ak moom wàll yow sa débat du ma ci def xam nga le président Macky Sall ñemewu ma ko mais yow moom garaawul ñu ñëw ci décret bi nga xam ne le premier ministre Ousmane Sonko.